bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lana illa ma callamtana innaka anta alcalimu alxakim allahumma callimna maa yanfacunaa wanfacnaa bimaa callamtanaa wa zidnaa cilman alhamdulillahi alladi axyaanaa bacda maa amaatanaa wa ilayhi nushuur assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Rewmi FM 97.5 delsuwaat nañu ak suñuy mbokk ñu topp ci waxtaanu fajar wi ngeen di si ànd seen mbokk Ibrahima Drame gannaaw buñ sante buur yàlla tabaraka wa taala nangi julli ci sang bu tedd bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi mbokk yi yan nañu yàlla boole defal jàmm di ñaan buur bi tabaraka wa taala yan nañu yàlla boole sàmm aar ñu wottuñu defal ñu lépp li nga xamante ne mooy xéwalu àddina ak tarangay alaxira ndax mooy boroom ñaari cër yi mooy buur bi méngoo doxalini àddina waaye ba léegi mooy buur bi nga xamante ne moo méngoo mbiru àlaxira ëllëg bés pénc ba tax na koy tàllal loxo moom buur bi tabaraka wa di ko ñaan moom mi moom doxalinu àddina ñu di ko ñaan yàlla ñu yàlla boole defal xéwalu àddina moo mi yore mbiru alaxira ak dogal yafay fay jib ñu di ko ñaan yal nañu yàlla boole may teraangay alaxira amin ya rabbal alamin mbokk yi ba léegi ñu leen di fàttali ne yéen a ngi ànd ak ñun ci waxtaanu fajar bi fii ci Rewmi FM 97.5 boroom xam-xam ju mag di Xasanul Basri rahimahullahu taala kàddu bu tedd ba mu dënk doomu aadama bi kàddu gu am solo lool ba tax na saa su ne dafa jar ñu di ko fàttalante mbokk auditeurs yi yàlla nañu yàlla boole may dégg ak topp boroom xam ju mag di xasanul basri yal na ko yalla yokk yërmande nee na ibnu aadam innama anta ayyaamun kullama dahaba yowmun dahaba baaduk nee na yow doomu aadama bi xamal ne bés yay ñëw di jaar di jàll ci sa dund bi bés boobu moo la fi tax a bàyyi ba tax na danga nga war bàyyi sa xel xam ne bépp bés ba ñëw jaar jàll mu wéy xamal ne am na lu wàññeeku ci sa dund bi kon bési àddina yii di ñëw di jaar di jàll di dem doomu aadama bi dafa wara xam ne am na luy jóge ko ci dundam ba tax na waxtu wi ñu toll nii bépp jullit ba yàlla may nga fanaan ci jàmm nga nelaw ci xéewalu yàlla nga nelaw ci yërmande yàlla yonent bi nee dallu boobu nga doon dallu boo ci yeewoo danga war a sant yàlla ne ko alhamdulillahi ledi cant yu kawey mboolem seen ñeel na buur yàlla mi nga xamante ne axyaana mooma may ma dundu baada ma amaatana gannaaw bu mu dogalee ci man dee bu ndaw di nelaw waaye nag wa ilayhi nushuur ci moom la ñuy dellu keroog bés pénc bu fekkente ne delluwaayu doomu aadama bi sañ nañ kaa wax ne bi fu jógee ko am na fu muy dem du ci kenn du fenn fu muy dellu fu dut fa boromam subhaanahu wa moo tax nga dégg ñaan bi jeexale mu ne wa ilayhi nushur ci yàlla lañuy ñuy dellu dellukaay bu màgg bi subhaanahu wa taala kon mbokk yi ñaan bi nga ñaan ko jamono ji nga yeewoo ci nelaw ñu bindal la yiw xeetu geste yi ngay def ñu di bindal yiw te yonent bi baaxee ko askan bi loolu suñu diini islaam dong la nekk jal nañu ko yàlla fayal amin ya rabbal alamin mbokk yi xam ngeen ne jamono bu ñu doon taxaw ak yéen ci waxtaan ba ñu defoon ak yéen démb ñu ngi taxawoon ci doomu aadama bi di jullit bi ana yenn kuréel la yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala tànn ne ñooñu ñooy ña wara a occuper sama néeg ba nga xamante ne ñu ngi koy dippee jàkk ana yan critère ñoo wara daje ci kookee waxtaanoon nañu ko yenn critère yooyu màndargaay yooyu mooy bu ci jiitu boromam dafa wara doon ki gëm yàlla boromam dafa wara doon ku gëm bis pénc màndargay ya war a nekk ki war a néegu yàlla dafa war a doon kuy taxawal julli waaye dafa wara doon kuy génnee azak waaye dafa war a doon koo xamante ne occupation boobu muy occuper sirfasu yàlla bi di jàkkay yàlla bi du si ragal kenn du si wonewu waaye du si tiitaru waaye di ko bàyyeek ñoo xamante ne dañ fay fo wala ñu di fa yëkkati lu niroo ni fo du ragal kenn yedd ko ci leen waaye du puugarewu ci làmm yi taxawee taxawaayu jàkk jooje ba tax na tey ñu fas yéene jokk buntu boobu beneen buntu mu doon buntu bi nga xamante ne dañuy seppi ci buntu ba jiitu la yàlla ne ci ayabi bi innama ya'muru masaajidallahi man amana billahi wal yawmil axir wa aqaama salaa tey aqaama salaa bi la ñuy tibb ci buntu ba ñu doon waxtaan ak yéen ca alwaju weesu borom bi tabaraka wa taala nee na képp ku jox autorisation ne moo war a occuper sama jàkka ji walla képp ku ma tànn ne ñooñu ñoo war saytu sama jàkka yi critère ba war a nekk ci jëmm yooyu bokk na ci day gëm yàlla day doon gëm bés pénc xam ne dekki am na nit ñi dañuy taxawu ci kanamu yàlla bés pénc waaye day doon kuy taxawal julli julli jooju lañ leen bëgg a seppil waxtaane ko tey laaj suñu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallama baaxee képp kuy taxawal julli ci kilima àddina ya nga xamante ne dafa wuute léeg-léeg nga gis kiy jooxe waxtu yu julli ci nawet la ci yenent bi wax di ngeen ko dégg ci waxtaanu suba si fii ci Rewmi FM 97.5 kuy jooxe waxtu yu julli woowu ci digg njolloor naaj bu tàng jir la ci yenent bi wax ki ko bëgg xam nang ñu bàyyi xel fii ci réew mi fm 97.5 kuy joxe waxtuy julli woowu ci guddi la ci yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ki ko bëgg a xam nang ñu bàyyi xel ci waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji ci waxtu wi mbokk bu ñu xoolee xadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dinañu gis ne sahaabi bi ñu naan Anas bun Malik radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa di doomu Malik radiyallahu anhu yal na ko buur yàlla gërëm anas nee na suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee ni ñu bashiril mashaa'ina fi dulum ilal masajid bi nuuri taama yowma alqiyaamati xadisun saxiix axrajahu albani fi saxiixu ibnu maaja mbokk yi yal na yërmande yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot yal na ñu yàlla may kàttan ñu dund maana hadis bi ci suñu dund ba ñuy dund fii ci àddina yàlla mën na ko sañ na ko yal na ñu ko buur yàlla defal amin ya rabbal alamin sahaabi bi anas bun malik radiallahu anhu nee na naka suñu yonent bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam mooñu ne bashiril mashaa'ina fi zulum ilal masajid na nga bégal ña nga xamante ne dañuy làmbatu ci guddi di dox di dem ci ñuy xuu ci lëndëm di dox di dem ci jàkka ji nanga nga bégal ñay xuu lëndëmaayu guddi ñuy dox di dem ci jàkka ji loo leen di bégal mbégte bi leen di bégal mooy leer bu mat sëkk keroog bés penc moo tax mu ne bashiril masaina na nga bégal way doxkat ñi ñay dox sa ni tànk bashiril masaina na nanga bégal ñay dox seeni tànk fi zulami ci guddi bu lëndëm këriis fa ñuy dem looloo jara laaj lañuy dox looloo jara laaj kon ki bëgg xam ñooñu ñuy dox fa ñuy jëm ku bëgg a xam ñu di dox lañuy dox ba léegi toppuñu ci émission bay jaar fii ci Rewmi FM 97.5 su booba dinga nga xam ñooñu di dox te yonent bi bégal leen fa ñuy dox di jëm ak la leen di génnee waxtu woowu ak la ñuy dem doxi ak la leen bi bégal képp ku bugg a xam toppuñu ci waxtaanu fajar ci waxtu wi moo tax mu ne bashiril mashaa'ina na nanga bégal ñay làmbatu di xuus di dox fii zulami ci lëndemaayu guddi fu ñuy jëm ilal masajid ci yi fu ñuy jëm ilal masajid ci jàkka yi moo tax aaya bi ci kaw borom bi ne ñama autorisé ngir ñu occuper sama jàkka yi bokk na ci critère ba ñu war a am mooy dañuy war a taxawal julli ci n'importe quelle moo tax yonent bi ne béggalal nanga nga dugal mbégte ci xolu ñay làmbatu guddi di dox di dem ci jàkk yi looloon di bégal mooy bi nuuri taama leeraay bu mat sëkk leeraay bu kenn du laam-laame kañ lañuy am leeraay boobu mooy yowmal qiyaamati bispinc kon képp ku bugg am leeraayu bés pénc yoon waa ngi ni sallallahu alayhi wa sallam na la yoon woo xamante ne boo ci tegee sa fa sa bopp neexula a jëfe tayal tiit ragal lépp mën na la ciy fekk waaye boo ko comparé ak leeraayu bés penc ëllëg nga xamante ne projecteur amul torche amul lampe tempête amul amul dara lay tàkk foofu lu dul la la bi dig ci xadis bi kon boo xelaatee bés boobu nga xam ne amut projecteur amut lampe torche amut lampe tempête amut bougie sondeel amul dara lalay leeral fa ngay jëm lu dul da nga maana xadis bi la xadis bi di tekki loorul rekk nga war a mën a làmboo su ko defee nga am leer bu mat sëkk keroog bés moo tax sallallahu alayhi wa sallam ne bashiril mashaa'ina fi dulami ilal masajid na nga bégal ñay dox ak seeni tànk ci guddi bu lëndëm kiriis fu ñuy jëm ilal masajid ci jàkka yi loo leen di bégal mooy bi nuuri taama leer bu mat sëkk kañ lañ leen di jox leeraay boobu ban bés lañ leen di jox leeraay boobu mooy yawmal qiyaamati bés pénc yàlla ñu yàlla dégguloo maanaa xadis bi yàlla ñu yàlla may kattan ñu dund bi yal nañu yàlla may ñu xam la bi di tekki mu jàppandalal ñu ko ñu war ko mun a dund ci dund ba ñuy dund ni yomb na yàlla mën na ko yal ñu ko buur yàlla defal amin yaa rabbal alamin mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot kay dox di dem ci jàkka ji ñu àndandoor xool lañu suñu yenentu bi baaxee sallallahu alayhi wa ne wan ñaan lañu war a ñaan jamono bu ñu doxee ba àgg ci jàkk ja ñu war a dugg nu ñuy duggee ci jàkk ji ban tànk la njëkk jiital kon nañ leen bokk déglu la yenentu bi tegtal fii sallallahu alayhi wa sallam du'a u duxulul masjid ñaan bi de da di ñaan joo xamante ne jullit bi bay dugg ci néegu jàkk jullit bay dugg ci néegu yàlla di jàkk moo ko war a moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu jàngale ci njàngaleem yu matale yi dane jullit boobu de dafa war a tudd yàlla ne bismillah maa ngi tàmbali sama jëf ba may waaja nii dugg jàkka ja may waaja dugg nii maa ngi koy tàmbali ci turu yàlla moo tax mu ne bismillah nga daldi julli ci yenentu bi ne wassalaatu wassalaamu ala rasulillah maa ngi julli di sëlmal ci yenentu yalla bi nga daldi tudd baat bi nga ne allahumma iftah li abwaaba rahmatik ñaan wi ku dem xool xisnul muslim da ko ci fekk nga daldi di tudd yàlla ne bismillah maa ngi tàmbali dugg bu may waaj dugg nii ci néegu yàlla bi di jàkk maa ngi julli di silmal yann yàlla yokk xéewal ak mucc defal ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa nga daldi ne allahumma buur yàlla buur bu bi allahumma buur yàlla buur bu kawe bi nga tagg yàlla bàkk ko waaw ci melokaanam yu kawe ak ci dayoom yu matali nga daldi ne allahumma buur yàlla buur bu kawe maa ngi lay ñaan iftax lii yàlla nga ma tijil yàlla nga ma ubbil abwaaba rahmatik sa buntu xéwal sa buntu yërmande yi kon yàlla mi yore buntu xéwal yàlla mi yore buntu yërmande te moom dong moo yore yërmande bu kenn yorul moo yore xéwal ju kenn yorul kon bu ne nga ñaan jamono jangay dugg ci néegam nga tudd turam yu sell nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa nga ñaanal sa bopp ne ko lay ñaan yàlla nga ma tijjil ubbil ma buntu xéewal ya nekk ci yow xéewal ya méngoog ak sa jëmm ji yàllaa la ko gën a xam xéewal yàlla yi jig yàllaa la ko gën a xam ba tax na yow danga ñaan dong ne ko maa lay ñaan ngir nga ubbil ma buntu xéewal ya nekk fa yow ndegem yàlla mi xam doomu aadama bi xam la baax ci moom xam la koy jig kon nanga bàyyi xel ne borom bi mën na laa tijjil xéewal joo xamante ne loolu moo méngoo ak sa jëmm ji mën na laa tijjil xéewal joo xamante ne du la sànkal du tax nga sànku waaye du tax nga beewu du tax nga fuy mën na laa tijjil xéewal joo xamante ne day méngoog ak sa doxalin ba tax na yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ma jàngal lii bu du wutoon moom kenn du ko xam ba léegi ñu leen di fàttali ne ñu ngi jëlee suñu waxtaan bi ci ña yàlla tànn ne ñooñu de laa bëgg laa autorisé ngir ñu méngoo sama jàkka yi ci aaya ba nekk ci suratu tawba aaya 18 borom bi ne innama yaamuru masajid allah man amana billahi wal yawmi al axir wa aqaama walam yaxsha illa allah borom bi ne ñooñu de fa asa ulaika an yakuna min al muhtadin borom bi ne ñëpp képp koo xamante ne kooku la autorisé ngir mu méngoo doxalinu sama néeg ya nekk ci kaw suuf si di jàq yi képp ku war a méngoo sama niig yooyu jikko jama soxla ngir nga yore ko nga lamboo ko mooy lu ci jiitu da ngay doon ku gëm yàlla ak critères ya aju ci gëm yàlla day matale ci yow ñaareel bi mooy dangay gëm ne bés penc am na ñéppay taxaw ci kanamu borom bi ak critères ya aju ci gëm bés penc ñetteel bi mooy dangay nangoo doon kuy taxawal julli ci waxtu wa ak ca palaas ba ak critère ya ci aju ñeenteel bi mooy dangay doon kuy génnee azak bu ko yàlla dénkee ak critère ya sa aju waaye juróomeel bi mooy dangay doon koo xamante ne doo ragal kenn doo tiit ci kenn ku dut fa yàlla booy ragal yàlla ngay ragal booy tiit ci yàlla ngay am tiitaange yàlla nee na képp ku méngoo jikko yi kooku mooy ki war a mën a occuper sama entretien kër sama entretien néeg ba nga xamante ne moo nekk ci suuf di yi yàlla ne kooku garantil naa ko moo tax mu ne fa minal muhtadin ñooñu la di yàlla di orienté teg leen ci yoon bu jub bi yàlla musal yàlla ñooñu lay teg ci siratullahi al mustaqim mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot waxtaan ba jeexul dañoo yegg ci fañ a war jotaay ba wara a jébbal béréb bi ñu war a joxe xibaar ci nasara ñu di leen ñaanal yàlla yàlla ñu yàlla may dégg ak topp nasaluhu jalla wa ala an yajcalana min allazina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana allahumma aminna fi awtaanina waslih allahumma aimmatana wa wulaata umuurina allahumma ixfaz bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan baaraka allahu lii wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafa'ani allahu wa iyaakum bima fihi min alayaati wa dikri alhakim aqulu ma tasma'un wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa barakatuhu wa barakatuhu